waaw man maa ngi tudd Ndeye maali mbaw di présidente euh, groupement Angle Mousse yëmbal route de Boune waaw ñu ñoo koy liggéey danoo am sa euh, réseau boo xam ne man maay présidente bi ñu cuub rek la ñuy def waaw consommé Sénégal bi ma président bëgg moom la ñuy def lii lépp ñu ñoo koy liggéey fii ñu doon dem Mali sax ñu bari danoo bàyyi euh, Mali di ko jënd si fii di jaayaat waaw ñu ñoo koy liggéey waaw ñoom ñoo ñu financé waaw depuis euh, am na man maa ngi liggéey ñoom deux ans waaw parce que man maa ngi seen formatrice tamit ci wàllu cuub waaw formé nañ ñu bëri ñoo xam ne waaw formé nañ ñu bëri ñoo xam ne man lañ jël ma formé leen ñu financé ma ma daal di euh, jënd samay produit ndax basin bi dafa cher basin bi basin bi ñu ngi jëndee pièce bi deux cent soixante-dix mille waaw li tube tube bi mu ngi jar 60 euh, mille mètre 15 mille lañ koy jaaye bu nu paree waaw bi mooy ver jasne original waaw. non am na yeneen yoo xam ne ku am moo ko lu am na fi waaw yeneen nag yoo xam ne mu yomb na waaw lu waay bëgg rek mu ngi fi ku nekk rek ak sa ak sa kii waaw gis nga yii yii deuxième la soo bëggee yu yu xam nga bii tamit rafet na. ku nekk rek sa poche hmm. waaw bii moo gën a yomb maanaam bii moom ñu ngi koy jaay ay trente cinq mille waaw ñu koy jaay ñun suñu siège yëmbal route la de waaw ci banlieue bi waaw commune yëmbal noor waaw commune yëmbal nord ah waaw GIE Angle Mousse waaw man naay présidente bi waaw nga xam ne ñoo koy liggéey léger yaa ngi nii ku bëgg léger am na fi lii ay dra de la gis nga bii drap de la waa am na nappe de table lépp am na fi lu waay bëgg rek am na fi ci kàttanu yàlla waaw dinañ dem foire parce que PDS fu mu organiser foire rek ñun la yóbbu waaw dañuy dem foire Dakar génn gunu nag Sénégal mais sa région yi moom foire bu fi am dañuy dem loolu leen bëgg sax ndax loolu mooy wane sa bopp ndax yow lii ngay def rek danga ñuy wane foire bi buñ ko amee tamit euh, comme tey euh, koor wala korité xam ne ñëpp dañuy soxla cuub ñu organiser foire loolu tamit bëgg nañ kuñ ci jàppale maanaam euh, présidente maire yi maire yi ci mën a jàppale loolu dañ ko dox incha allah parce que lii moom lu am solo la waaw lu am solo la jërëjëf jëf nañ si yow kontaan nañu ci waa PDS waaw ñu ñu jàppale ñoo waa PDS jàppale nañ ñu torop ndax ñu ñu jàppale duñu financé jël ma comme formatrice ma leen di former seen jigéen ñi ñu ñu jàppale ñoom daal waaw lutte contre la pauvreté bi daal ñoom ñu ngi koy xeex daan na leen yàlla jàppale merci beaucoup